teh nit nga jangga alxuraan ndax sëñ Basiiru neena na ngeen mokal xasida yi lu ngeen ci mën def leen ko na ndax borom de dafa ag ak boromam foo xamante ni fii da ko ñaan lo xamne li kenn bayu ko won xel ñu ko lan la mu ne da nañ ko rikki ci dënn borom yobu ko sawar sëñ Basiiru ko wax de waye ni touba da wax sun borom ne ko nang man nangul ñu bañ ko rikki ci kenn ku ko mokal buñ ko rekk ci xolam te araf ya yooyu bu nekkee sa dënn du duggaale yow sa wara sëñ alaaji takk ko mu maam si xanta nettali na nit mu nettali ma ne ma mbay yéen a ngi góorgóorlu ci xaside yi ma ne ko ah, waaw ñu ngi ciy def lu ñu mën de mu ne na ngeen góor góorgóorlu de te di ci mokkal lu ngeen mën donte wenn bayit la xamoon ngeen ne nit buy faatu te nekk jànkatu xasida nee na day am jëmm jur taaru ju ñëw taxaw sa wet moo tax tiitum ndee doo ko am nee na doo ko xam nag waaye day xemmam ba moom da lay moom rek ngay xool ndax li liñ lay def yëpp neen doo ko yëg lañ tax koo ko wax de te man ki ma ko jëlee moom moo ko yar mu ne bu boobaa kooku dal eh, fiñ lay sangee sax day taxaw yaa ngi koy gis ne buñ la yenoo yémale ci armeel ya mu ngi ànd ak yow nee na buñ la robee ba dem ngay dégg ñaan yéeg yëpp neena na da ngay daal di gis mbolo mu tol ni wajoju jooju dugg ci bit bamel bi tok xam nga loolu nag boo ko xamul da na bamel bu xat mu ci tok mën a ko ñu ko ku xamul xamul rek neena na mi dug tok nak neena nga commencé nak tar bi ak mbolo mi ni ñu taro ak ni ñu melexe ak ni ñu mel ne dalay jaaxal ba yow di ko ne yow mi bobu legi ya nga taxaw fi yow yaay kan mu na may de sangam nga ne ko ñi nga àndal na mu ne uruf yi la moo tax muy wax naan wajal xuruuf yi wajal saa nisaam xaside gi day am day doon jëmmi boppam uruf yi doon seen jëmmi bopp bokkul de waaw moo tax mu naan wajal xuruuf yi ba mu yàgg mu naan wajal saa nisaam ba mu yàgg mu ne wajal kitaabati uruf yi la ñuy def. ak li jëmmi xassade gi ci bopam di def nga ne len waw lu ngeen fi wut ñu ne dañ lay wettali ba bés penc dañ ne laaj leen daan ne bu ngeen ñi jàngkatu xassade yi day mokal xassade yi laaj len ma bëggoon ngeen gis ci kenn ba laaj ko <laughs> waaw kon yàlla nañu yalla dole dole tawfiq te may ñu deg legi nak li sëñ fallu Dia doon wax mo ci am solo dañuy bàyyi ba li ci dess liñu liñu wajal ngir waxtaan yalla yobbu ñu ci bis ba ak jàmm ñu am temps bu yaatu mën ko faram facce waaw di ñaan nak li ci li nga xamne mo ci ëpp solo nak moy li fallu jadon wax war may ihtiram lil hubbi wa shawhi bi ihtiram loolu la wax ne non la liggey li yonent bi mom bëgg na ko ci mom waye non la ko war male kon bis bu ne doon bisu hubbu sawxu waaye ixtiraam bu kenn ku nekk defee ci sa bopp warmaal gi nga war a warmaal xasida ak ni mu toll rek kenn du ne kenn bul def naa nga kon na ko ñëpp gànnaayoo ah, noo ngi ñaan ñu àgg ci ak jam ci barke sëriñ Muntaxa mi ah, mi nga xam ne moom mooy sëriñ Tuubaa moom lañ koy xoole tey tey ñaan li ci xasida yi jàmm munta xam lépp waaye yàlla nañ ko yàlla defal ci mbaaxam ak kàttanam